na ngay waare fàttali dana jëriñ jullit mu ne waqada wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yabuduni ma uridu min min risqin wa ma uridu an yutimoon inna la wa rasaqu sol quwatil matin man yàlla itam ma bind nit ak jinne mooy nañ ma jaamu wéetal ma xam ma ma jaamu bañ ma bokkaale gannaaw loolu tegu ma leen sax seen wërsëg maa leen koy jox man yàlla soxla ma ñu liggéeyal ma dara yàlla moom dafa uteeg ku dul yàlla moom du la teg saabis du la laaj dara lépp moo la ko li ngay di def yaa koy jëriñoo rek waaye amu ci benn soxla amena, amee nag mu ne soxla ma seen wërsëg soxla ma dara ci ñoom lu dul ñu nangul ma wéetal ma jaamu ma kon jaamu koogule yàlla moo tax ñu bind la nit ku ne li tax ñu bind la war nga koo fonk nga def ko sariya daal di continuer yow ànd ak yow <clears throat> laa yatrukul insaan lu amalun lu bàyyi nit mu nekk yutraku sultan dañ koy bàyyi rek mu doy mel ni bàyyi ma firi doom bu nekk dafa am contrôle moo tax islaam di contrôle nit ki dina ko contrôle fi kalimaatihi wa fi xutuwaatihi wa fi sam'ihi wa basarihi wa fuaadihi dana contrôle nit ki ci bépp taay ma fi harakaati wa sakanaati ay yëngatoom am na nu mu war a demee ay dalam am na nu mu war demee dana ko contrôle ci ay jéegoom du dox dem ci lu du mooy yàlla du dox pour lor mbokkam loolu du ko def du dox pour jëw du dox pour rambaaj gannaaw loolu itam dana anu ko tontu lool ci ay baatam du wax lu ñaaw du xaste te du nah, saaga ndax loolu ne ba qultum faadiloo su ngeen di wax alquran na ngeen maandu yéen jub ca wàcca mu nekk lu rafet sooy waxaat nit ñi ku mën a li naa su ngeen wax lu rafet lu baax jëm ci nit ñi bu leen saaga bu leen xaste <coughs> bu leen wax nit lu bon loolu man contrôle lañ la si sa wax contrôle la si say jéego contrôle la ba tey itam si say jëf du du la neex nga def déedéet ngay seetlu yàlla daganal nga def ko mu am njëriñ te du lor kenn loolu moom lañ la def loo waaye la yàquloo wuñ la reyloo wuñ la nit jëluloo la yëfi jàmbur yooyu yëpp sariya mu ngi koy contrôle <coughs> kon diine mu ngi ànd ak yow ci sa life bi yëpp lépp loo war a def mu ngi ci ànd jaaral la jaar loola faw nga war a jaar am ci tiyaabo moytu loolu fa nga xam boo fa jaaree da nga ci am bàkkaar mooy mooy yàlla ak tooñ bindeef yi loolu yépp bokkul ci laayif bi moo tax kon nit ku doo am firi doom boo xam ne bi di la boo xam ne amul benn contrôle loolu mënta am ndax bu boobaa da ngay mel ni bàyyi ma bàyyi ma sax jur gi gétt yi am nañ sàmm yi leen booleel ñu di leen sàmm rawatina kon nag yow nit moo tax mu ne kon contrôle na itam say bët ak say nopp li nga war a déglu lu baax la li nga war a xool lu baax la li nga war a xalaat ci sa xol bi lu baax la مدمرت بيتي سورة إسراء نا إن السبع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا نكا بدي دنن كلاج سقول لهم وقت قول نكا نون نقي دنن كلاج سدق لهم وقت دقلو نكا نون إتام قول بي سقلات يلوبان دنن كلاج بفين أكون يويو ممن يولا كنترول سيجب سنبولم أكسن سيجايدف أمنا كنترول ندين سؤالا غدفه كوكو وخه كوكو بكي لولو أمنا لك loolu mooy dal di nekk koo xam ne kii yaa ngi jël tënku sa dund gi ci alkitaab wa sunna yaa ngi tënku ci ndigali alquran <coughs> ndigali sunna di addi si yonent bi bu ne defee leen nii nga defee noona bu ne bu leen defee nii nga dal di bàyyi loola fu mu jublu nga dem fa fu mu tere nga bàyyi ko loolu mooy dund ak mooy lu am solo su ko defee nag def na ak ba tey ci diggante doom ak way juram àqi doom ci way juram mooy mu tànnal ko ndey ju baax gannaaw loolu jur ko ci sariya gannaaw bu mu juddoo mu jox ko turu rafet tur woo xam ne buñ ko tuddee borom turu am maanaa lay doon su passé loolu bu jotee jàng mu jàngal ko teg ko ci yoon def ko mu nekk nit koo xam ne ko am éem la am xelaat am jubluwaay ci lépp lu baax bu bañ lépp lu bon di ko sori même sax ay àndandooram dañ ko koy tàndal loolu muy seen ñu muy xaritoo ak ñu muy àndal du ànd ak ñu bon ñoo xam ne ñu yàqu waaye dafay ànd ak ñoo xam ne ñu baax lañ ñu yar lañ teg leen ci yoon am jubluwaay am bëgg-bëgg ba bu ëllëgee ñu nekk ñoo xam ne danañ mën a taxaw seen jamono mën a doxal seen addina doxal seen réew mu jub lépp loo xam ne lu baax la ñu mën caa teg nit ñi loolu mooy li nga xam ne war na sariya buggul doom aadama juddu rek ñu bàyyi ko mu élif boppam di def lu ko neex di wax lu ko neex kuy def lu la neex nga def lu la neex nga wax bu yàggee man nga ci jëlee loo xam ne fit fitna la wala nga fitnaal nit ñi moo tax alquran wax ne nañ wax lu baax tey def lu baax ñu góorgóorlu itam di rafetal ndax innal asanaati na sayiaati zalika zikra li saakirin yàlla salaam ne inna allaha qad katabal ihsana ala fi kulli sayin lu nekk rek yàlla soxla na ca lu rafet ba ci reen di sax indi nam indee sariyaani nañ ko defee noonu mooy lan danga namm pàkkat bi doon ñaw gannaaw loolu naga tëral gàtt bi doo ko taxawal di ko rendi gannaaw noonu booy rendi itam na jëf ca gaaw doo nekk di xiiti xiiti da nga koy dog benn yore mu jeex ndax métit bi gaaw a jeex gannaaw loolu itam danga tudd yàlla wa bismillahi bismillahi boobu ngay wax mu ngi mel ni kii péngu li muy tooyal noonu diw ko ci fi ñu jam péngu bi ku fee mu rey kii bi boo koy jam commencement bi du métti loolu mooy bismillahi bi nga xam ne mooy filtre li nga xam ne mooy rendi bi ñu koy rendi noonu su ko defee yooyu yëpp sariya def ko bàyyi xel yéen dila sax wax na ne inna allaha qad katabal asanaati wa sayiaati summa bayyana dalika yàlla bind na yu baax yu rafet yi bind na itam safaanaat daal lépp lu am yàlla moo ko bind waaye ba mu ko bindee nag indi na nuñ ko ràññee man koo xam wax li baax lan mooy njëriñam wax safaan ba lan mooy loram bu defee nit ki dafa bugg njëriñ mu topp li koy jëriñ mooy li nga xam moo koy lor mu ne fa man amma bi asanatin falam yaxmilha kataba laahu lahu indahu asanatun kaamila koo xam ne am nga yéene def lu baax waaye dogali yàlla ñëw na ba mënoo koo def bu boobaa yéene bi nga ko yéene rek danañ la ca bindal hasanatun kaamila hasanatun waahidatun xayrun min ad-dunya wa ma fiha benn hasanatu nag moo gën addina ak li ci biiram yëpp nga am ko def ko ci yàlla nga am benn assenatu ci yàlla moo ko ëpp tiyaaba te kon na boo yéenee def lu baax loolu la yàlla dogal manoo am nga yéene dimbale sa mbokk moo xam ne yaa ko tane am nga yéene def lu baax yàlla dogalul nga def ko su boobaa yéene ba rek danañ la ca fay asanatu baay de fa in amma biha wa amilaha kataba llahu indahu asra hasanatin ila sabimiati daafin wa ila adaafin kasira wallahu waasiun alim fekkee yéene nga def lu baax yàlla dimbale la nga am chance def ko itam su boobaa la gën a néew mooy benn boo def danañ la fay fukk yàlla di ko yokk ba ci benn juróom-ñaar téeméer yàlla di ko yokk ba mu passé juróom-ñaar téeméer benn rek nga am nag seven hundred percent loolu xam lu am doole la loolu def lu baax yéene ko def ko ca ngay amee loolu yàlla na emale ma ko foofu waaye maa koy dogul di ko def ni ma neexee te du am fu ma koy yemale ndax wallaahu waasiun alim yàlla yaatu na ci wërsëgam xam na itam liy jëriñ jaam bi kon bu éeneem rafetee daal mu dimbale ko mu def lu baax pay ga kenn xam fu mu yem naka noonu nag wa man am amma bi sayyi'atin fa lam ya'milha kataba allahu indahu hasanatul kaamil su yéenee def lu bon yàlla dimbale ko ba defu ko ngir ragal yàlla ñu bindal ko ba itam benn tu boo xam ne moom la cay amee te moo gën addinaa li ci biiram fekkee nag yéene na ko yàq saas yàlla dogal mu def ko bu ko defee moom lu bon loola nga am moom la yéene woon yàlla danañ ko muñal 24 hours surtout tuubee ñu baal ko surtout tuubul ñu teg koo bind benn say atu muy benn jëf ci ñaaw kon yàlla noonu la yaatoo noonu la baaxee ñu góor góorgóorlu yéen jàmm ci réew mi kuy dox dox jàmm kuy wax wax jàmm kuy def nga def jàmm jàmm moo ñu jig mooy tax ñu tal jaamu yàlla mooy tax ñu tal suñ bopp mooy tax ñu tal suñ njaboot yal na yàlla saxal jàmm ci réew mi ak ñu ko dëkkee njiiti réew mi yàlla na ko yàlla dimbale ci pas-pasam ci jëmee réew mi kanam développement bi mu sécurité bi mu soxla daal gi mu soxla yëpp yàlla dimbale ko ci yàlla dimbale rajo bi ak télévision bi liggéey bu rafet bi ñuy def yal leen yàlla jàppale dalee ci direct ba ci ñi faree ci suuf kenn ku ne yal na yàlla dimbale ci sa position jàmm sax ci réew mi ndax ñooy wan nit ñi li dalal seen xel ñooy déggal nit ñi liy dalal seen xel ci programme yi allahumma jal biladana gambia baladan aminan mutmaina yaata risqa raqadan min kulli makan wa najina min kulli bala wa qala wa taahun wa sinan wa waba taimi jami dalika biladana xasatan wa bilad almuslimina ama برمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والقاتم لما سبق أسرع بالحق